asalaamaaleykum suñu mbokk mbokku dakarnet.com ñu jotali leen xibaar bi kii di Massaer Diack di jeune fondeur boobu ñu rayoon fële ca Thiès ñu ngi ko faatoon ci hippodrome njaw ma koddu champ de course bële bi nekk ca Thiès euh, alxames ci ay côté 18 heures la ñu arrêté le présumé meurtrier waa polis teg ko loxo fële ci quartier buñ naan Nimzat situé à l'est de Thiès ci fàttali nekk Masser Diack mi ngi ñàkkoon bakkanam ci benn xeex bu amoon fële ci hippodrome ma koddu ñu ngi ko jamoon paaka ci loxo càmmoñ bi wante jam ko beneen coup ci côté xol bi ci côté gauche li féete ko xol bi ba finalement dafa mujjoon na ñàkk bakkanam bañ jële woon ko fa yóbbu ko fële ci hôpital régional bu Thiès jamono ji nag le présumé meurtrier mi ngi ci loxol police en attendant ñuy wéyal l'enquête bi xibaar yu fa ruusee rek incha allah dinañ leen ko jottali jër ngeen jëf.